Salam alaikum, beaucoup internet you en TV di amati à contentement pour vous présenter votre troisième numéro sport New Vision 13 Tay, ñu am l'international Ousmane Mané formé à l'école de football gonaï Montagne Beaucoup aussi tamit sur les premières sélectionnés à Jambar Nous fa évolué pendant 10 pendant à 15 ans après ki dafa dem Casa Sport Tay, mi ngi football équipe bi Afia à Guinée bon ñu am ci gan bu mbégte lool ak mom Ousmane ginaaw biñu leen nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku internet yi. <laughs> maa ngi lay fay grand. Mhm. Euh, je pense que j'ai pas besoin de me présenter. Mhm. <laughs> Euh, parce que Yaraax je pense que euh, nekk na foo xam ne moom laa yaroo ñëpp mhm. xam nañ bu baax. avant peut-être may quitter fii di dem à l'Institut Diamba. voilà j'étais là fi laa nekkoon école de football Guney Montagne. Euh, j'ai fait presque peut-être euh, ay cinq ans foofu non après mhm. ci la dem euh, jàmbaar. Mhm. passé par des par des tests. Mhm. yoo xam ne moom laa jot def au niveau du département. après def ay tests régionaux régional leen def test mm, on appelle national. voilà on était ñoom nombreux mais mais tout woon trop mais bon des fois nag sens bi mi ngi ci biir donc du coup ci lañ en 2003. j'ai décidé de me recruter pour dem Jamba. Euh, voilà j'ai fait là-bas ben ans de formation avant de dugg le championnat parce que euh, je pense que la formation dafa dafa n'est lu am Tu footballeur même sans footballeur même n'importe dans quel domaine tamit da ci am donc du coup formation ça m'a beaucoup aidé Tu li nga voilà. Par la suite, euh, tu n'as commencé à jouer le championnat euh, national et tout. Voilà. Donc, euh, c'est à travers ça que euh, si le, euh, les championnats guissés et tout ça, c'est mhm. Mhm. après des équipes nationales dem équipe nationale mhm. macha allah loolu dinañ ci ñëw après mais di la wax dem kontaan nañu faire fait que nga wuyu suñu ci invitation bi. bon sa biir waxtaan léegi yaa ngi koy expliqué yaa ngi wax ni formation dafa baax. tey ngay formuler ci benn école de foo xam ne école de quartier la muy gonay montagne mm-hmm. tey mu permettre la sur cinq ans de formation mm-hmm. nga am mën a mën a accéder ci sélection boo xam ne c'était pas évident jàmbaar boo mm-hmm. xoolee autant bu mel noonu tey ñu tànn la ci ñooñ noonu lan nga mën a def sur les cinq ans ban boo doon tiré ban jàngat nga def par rapport ci école de football yi gonay montagne bi waaw xam nga euh, peut-être xëy na euh, li lay dugal ci euh, école de football yi ci ci ci ci quartier yi xëy na benn passion la mooy euh, sa morom mi ngi gis ñuy dem di football ji mais xëy na moment boobu noonu dans ma tête y avait pas nekkul woon li nga xam ne moom mooy tey doon benn joueur professionnel parce que xale nga xamoo comprendre lu bari football mm-hmm. Mm-hmm. passion bi ma wax sànq rek moom mooy nekk foofu noonu ba ngay bëgg say parents yóbbu la ci école football nga nekk foofu mais après petit à petit bi ñu demee bay football bay jouer euh, ay yenn tournois yi ci kii mm-hmm. là tu commences à à ah, devenir ben ben ben ben bonhomme bo xamné euh di nga am sa moy li euh suba mën na nek ben professionnel euh, pourquoi pas comme ay euh, yenn joueurs yu mag nek ci euh, ci monde bi wala ci Sénégal. mais comment ça a été sélection bi bi ñu nga déggee sa tour que ni jambar retenir nañ nga dem jambar <laughs> waaw parce que day nek ben contenté Bo démé ba nek plus de cinq mille jeunes. ngeen nekk ci benn benn ngeen euh, ngeen bokk benn concours. Mm-hmm. nga génn ci bu fekkee ni dañ ci jël benn 18 personnes je pense que lañ lañ lañu jëloon. Mm-hmm. donc euh, munoo am dong lu contenté parce que tamit da ngay da nga naan def nga li nga xam ne moom nga waroon def. ba ba ba ñu recruter la. Mm-hmm. alors c'est important parce que su fekkee da ngeen bëri nekk mbooloo. 50 et quelques personnes des personnes ñu a des personnes, ci presque dix personnes. Mm-hmm. je pense qu'il faut, tamit. parce mm-hmm. qu'on dit a mérite y a du mérite. Mm-hmm. bon nga accéder ci tu tuuti faut temps barré, barré, bare foofu ñu bëggoon xam léegi période non, la ban parce que tamit période euh, que euh, amna lu ci nekk lu lu lu doy waar mooy que vécu bi nga am ak ñi nga xam nga nekk noonu mun ko woon partager ak sa famille voilà donc amna na lu ñu partager lu bari mais di nga tok ben mois bo xamné peut-être ku nekk mi ngi ci ay affaire am parce que tey jii ni y' a a même pas longtemps amna ben ci lu ñu créé woon groupe WhatsApp bo xamné euh y avait les anciens de Jambar mais dafa am ben plaisir bo xamné mom ngay mom moy nekk ci yow euh, le fait nga leen dégat, ngay xam ngeen fàttali ko affaire yu bari yooyu mais franchement. Euh, pour dire vrai li ma li ma li ma a dund foofu noonu nekkul moom laa dund ak sama famille moom nekkul moom laa dund ak samay samay xarit. Mhm. bien vrai que euh, souvent ay nouvelles u say xarit ak yooyu dañu mhm. doon mais dund boobu noonu tey jii yaakaar naa ne mënu ma ko am ak keneen quoi. Mhm. c' est impossible mënul nekk. ok boo xoolee ay pas mal d' années. jàmbaar dafa nekk au top ci football Sénégal. taxaw fa. lan moo doon seen secret moment boobu. Euh, xëy na comme li ma wax rek secret bi peut comme li ma wax sànq rek formation la bu kii parce que xëy na formation bi fa amoon amatu fa parce que peut temps bi ñu doon jël pour basage yeeg yeneen ak yeneen euh, xëy na temps boobu la jeune yi amatul parce que boo xoolee tey jii nii euh, jeunes yu bëri ni ñuy amee accès si équipe pro jàmbaar maanaam dafa dafa nekk lu facile. voilà donc du coup jeunes yi tey buñ xëy na buñ toogee def ben deux ans de formation dañuy yaakaar ni war nañ mëna ñëw directement ci équipe A bi donc du coup manam duñu galérer peut-être que ak seen yenn grand yi nga xam ne jaar nañ fi. jot euh, dund lu métti. def seen formation. Mhm. tranquillement pendant cinq ans parce que tamit je pense que euh, san euh, comment on appelle formation bi léegi foofu noonu dafa dafa dafa gaaw de trop. booy am accès si équipe pro bi mhm. voilà je pense que ni équipe pro dafa dafa waroon mën a nekk loo xam ne tey ñoom ben ñu jour équipe pro ñom dañ ko war a ñé ñé bu moy ah ñi ngi naan grand kat nan la def ba nek ci niveau bi ni man war naa gor gor lu d'ici peut-être 5 ans ou 3 ans pour mën am accès ci équipe pro bi. ñu gisoon ben période bo xamni ni. Mhm. da jël na ay décision mhm. génne na leen yéen pro yi. Mhm. loosi leen. ngeen gérer comme ay pro. mais moment bobu non je pense que il faut le résultat waroon gën a am mais dañu gis ni après manque résultat dafa am fofu noonu. waaw souvent boo boo boo xoolee ci loolu noonu di nga di nga dégg ay gars yu koy wax di mm-hmm. indi maanaam critique la ñuy def par mm-hmm. rapport euh, le fekk booy génne ci witi pour mm-hmm. xëy na ñi ngi nekkoon ci leen neex waaw mais bu ñuy bu ñuy xool ci loolu dañ dañuy sonn xëy na expérience la woon bu borom kër gi doon wër mooy est-ce que ñi ma sekkal liggéey est-ce que ay ils sont responsables donc du coup bàyyi woon na benn moment ñu dem mais gars yi gisoon ni résultat dafa amul woon mais ñaax résultat boobu xëy na comme li wax sànq rek expérience bu bees woon xëy na booy euh, il n'avait pas encore compris euh, nu affaire yi di euh, dérouler quoi xëy na dund bi moo leen doon sonal peut-être que xëy na am na ñoo xam ne ñoo doon toggal seen bopp di di jëndal seen bopp ay lekk peut-être xam nga xëy na lekk bi ñuy bi ñu doon lekk fële ak lekk bi ñuy lekk ci centre ba tamit bokkul woon peut-être que tamit loolu mën na perturber sa euh, performance ah, donc du coup voilà gars yi moom xam mhm. parce que tamit euh, dañuy voilà donc buñ gisee li nga da à un moment peut-être que mën nañu am n'importe quoi que fallait que critique am que selon sur les résultats bon la nit ñi mën wu. waaw si si def critique ou pas. Mm-hmm. parce que ni gis benn équipe bu doon dox am benn constance def résultat bu baax. Mm-hmm. def performance. Mm-hmm. ñu jékki-jékki parce que quoi ce qu'on dit professionnel. je pense que loolu mooy professionnel. mooy que ñu bàyyi la nga encadre sa vie gérer sa vie. tu comme comme ni nga koy centré pour am performance. c' est ce qui est normal. parce que le gars il est prêt pour vendre à l' étranger pour ngeen ay professionnel. kon il faut que loolu yëpp ci formation il faut qu'on ñu prépare leen fii que bu ngeen demee fee da ngeen da ngeen mais on l'a fait ñu gis tamit manque de résultat am foofu noonu tamit. waaw waaw parce que xam nga xam nga ma tamit tey bu ko bu ko deful woon. xëy na duñ ko tàmm. parce que tey jii après am na ñu génn ñoo xam ne même avant xëy na ñun am na ñoo xam ne dem na comme ngay Idrissa Gana ngay Pape Ndiaye Souaré yooyu noonu. génnoon nañ avant ñun. avant même ñu commencé jouer le championnat. génnoon nañ te benn instant ñoom ñoom gisee dëkkoon. waaw te ñu ngi woon ci performance yu baax tey je pense que ni am na. Ben niveau buñ ñu tolloon. Mhm. te ñoom donc ñom ñoo doon dund donc daf ñu doon euh, jéem forcé forcer ñu nekk ci li nga xam ne peut-être mhm. moom la moom la au niveau bi nekk. Mhm. je pense que tey tey jii tamit euh, am na ñu bëri ñu génn beaucoup de yoo xam ne génn nañ nekk nañ ñoom ñoom kese te ils font des belles performances. Ousmane nekk jàmbaar expérience boobu yëpp mu am ko foofu noonu. mooy ko on l'a bien formé on l'a bien préparé ñu jël ko bu jógee ci beneen niveau dem ci beneen niveau. Mm. parce que di équipe nationale moom mooy jeex na ni mooy niveau bu kale bi mm. foofu. parce que kuy rêve rek di football je pense que ni foofu nga bëgg atteindre sa niveau. Mm. mooy jouer sol sa couleur équipe nationale. Ousmane nekk un jeune. dugg ci groupe bi naan équipe nationale. sa première sélection dem foofu loolu la def. <laughs> waaw première ak ak na la demee nu ko yëgee. Euh, première sélection bi c'est-à-dire euh, bi may jouer U23 euh, c'était au Maroc. Mm-hmm. Maroc la woon ben je pense que tournoi euh, CAN U23. nit ñoom dañoo la fédération avec l'entraîneur Amara et tout comme quoi que ni euh dañ may yóbbu euh, pour pour la Coupe d'Afrique. Après, ok. après nonu ci lañ tok tok après am ay dirigeants yu ma ñëw je pense que un mois après ay dirigeants yu ma ñëw annoncé que ni voilà donc finalement Amara Traoré du la mane ok y' a pas de souci donc xam nga jeune là et tout euh, équipe nationale A sax neexagul sama objectif. donc après y' avait des belles performances jékki saay xam nga. Euh, xëy na ñoom ñoo gis ni kii war na war na mën a nekk si tanière bi. Mhm. Mhm. après du coup bi ñu ma woowee sélection tamit xam nga nekk na loo xam ne yombul parce que yaakaar naa ni mhm. am na ñoo xam ne Sénégal li may def ñoom ñoom ñoom ko dàq foofu. te amuñu sens bu nekk foofu xëy na.

mais match bo xamné vraiment il y avait trop de critiques sax ci mm-hmm. sélection bi. Mm-hmm. am ñoo xamné il n'était pas pour sélection bi. Mm-hmm. tay Ousmane nan la préparé match boobu. waaw match boobu dama ko préparé comme nu ma préparé les les les autres matchs hein. parce que yaakaar naa ne boo joué am na match de haut niveau yoo xam ne boo ko boo ko joué ba pare. du ma wax ni sax am na match yoo xam du la du la jaaxal mais même condition que yenn match yi lay lay nekk quoi. parce que tous ces critiques là. waaw mais xam nga mm-hmm. critique mm-hmm. mënul ñàkk te dañoo nekk si nëkk mm-hmm. boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ni mu ni mu mel donc man euh, am na ay xarit yoo xam ne dañ may woo su ma defal lu yoon dañ naan ma lii ak lii nga def après man dama siy jàng lu bari su ma si jàngee lu bari nag après dinaa xool qu'est-ce que je dois faire mais quand je parle de quand je de critique mooy tey xëy na benn ibulaay ñu nekk ñu di critiquer mhm. bon Ousmane dina ko jël dina ko tenir en compte mhm. mais tey benn icône ci footballu Sénégal ku mel ni El Diouf mhm. soo xoolee il était opposé par rapport ak sa sélection parce que génn na ci dafa ay daf ñëwaat ci ay sorties que ni moom il il était contre le fait que ñu sera parce que y avait un magouille bu nemoon foofu yooyu noonu après yow nga dégg loolu yëpp noonu qu'est-ce que lan la noonu la def wallaay def def def ma dara parce que El Hadj man bi ma bi ma déggee nii il a parlé c'était la la la première fois euh, ñu après ñu daje Londres Ndeye Londor dafa am samay xarit moo woo ne ma a ah, El Hadj kat mi ngi toog fii am na yu muy wax yooyu noonu c'était xaw ban ban ban télé la nekkoon doon mm-hmm. euh, après dama ko romb ak Fadiga mais seerewu ma ko laamee dama dama dama nuyu Fadiga kese ma avancé mais xëy na tamit euh, waroon naa xamul nuyu parce que euh, par modestie. Mm-hmm. comprendre nga El Hadj tamit du ma la ko nëbb mais jamono ju ñu toll nii ñi ngi wax man moom.

ñu waa dëkk bi dañuy jàpp ni loolu moo eh, am te football comme lu ñu doon wax sànq rek football moom yaakaar naa ni ñëpp ci am kàddu parce que am nañu koy suivre am nañu koy def am nañu ñu nekk télé yi am nañu ñu nekk si kaw turbine di seetaan kon donc ñooñu ñëpp lu ñu mënti indi rek lu ñu mënti wax ñun ñëpp nañ ko ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nañ ko jël toog xolaat bu baax hmm. ndax li ñuy wax am na wala amul même bu fekkee ne sax amul mais nañ jéem a essayer def pour xool hmm. ndax si c'est la bonne voie ou pas mais mais mais est-ce que amul raison après. Euh, amoul raison ci ci ci. ci fait que moom il il il était contre. le fait que ouais, moi, moi, sélectionné. Ouais, mais après, ouais, après, après que... le temps, avec le temps, on a vu Ben Ousmane bi -hmm. non wàcc bi. Mhm. c'est-à-dire xam nga am yo xamné peut-être que sama éducation mënu ma permettre. Mhm. ma toog devant des caméras diko ko wax. wàcc bi xeyna amna ño na ñoo xam dañoo tamit si nous numéro un la fa comme troisième ou quatrième gardien. il des trucs ci football c'est impossible. donc après man ah, dama dama dama dama ma bu parce que xeyna lool ko peut-être comme souvent rek jour plus.

defuma ko est ce que plus boobu mo def est ce que amul lu ci lu bari. il faut ñu def taxaw seetlu foofu def fa jangat parce que moy ce bir waxtan bi lay sànq lay yaa koy wax. Mm-hmm. yang ñi xam loolu ni que y avait un plus bi nga bëggoon def. Mm-hmm. bi nga waroon def. Mm-hmm. xey nga mo nga deful. le pourquoi moy que c'est bien beau. parce que yang assumer parce que d' yi su dara amé ci ñom bu leen jël ko duñ ko jël koy sañ ni ki kii moom a xoolee wala ki moom a xoolee nii mais entourage bobu non est ce que amul ben manquement ci yow. entourage bi waaw xam nga côté bu nekk. xam nga mhm. même boo même boo waxee entourage. Mhm. entourage dafa am ñoo xam ne xëy na kii ci côté technique lay wax ak yow. Ah. kii ci côté sociale mhm. lay wax ak yow. xam nga tey jii parce que boo xoolee footballeur yu bëri ci monde bi wala club yu bëri am nañ ay psychologue yu fa nekk. maanaam ci côté social la ñuy ñëw waxtaan ak joueur parce que joueur bu nekk tey xëy na am na benn problème dans sa famille. que ça soit avec sa copine wala jabaram ak yooyu noonu mu am problème non voilà peut-être que euh, le lendemain loolu mën na ko perturber à l'entraînement il bu ko perturber mën na def euh, performance en xam ne mais euh, manquement boobu noonu <laughs> du ma ci du ma ci dugg de trop quoi mais bon maa ngi sant yàlla tey jii parce que amna lu bëri lo xam ne jot naa ko ci loolu noonu yëpp donc du coup voilà maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. di sant yàlla bu baax a baax di rappeler que les abonnés de Hann TV que ñu ngi suñu émission sport New Vision 13 mooy li ma la ko war dalal ci gan gu mag muy l'international Ousmane Mané waaw vraiment di échanger moom par rapport à son parcours mais tey Ousmane ñu gis expérience boobu yëpp bi nga fekki mm-hmm. am ko à jàmbaar. Mm-hmm. nekk ko à l'équipe nationale. Mm-hmm. ñu gis benn choix. ñu xëy gis Ousmane mu def benn choix. Mhm. quitté ka quitté jàmbaar pour dem Casa. lan moo oh. motivé choix boobu. non du du du motivation sax. parce que yaakaar naa ni euh, jotoon na am ay dirigeants yu bëri yu ma yu ma woon parce que comme Serre dafa demoon annoncé comme quoi que ni man du ma joué ligue euh, ligue deux. parce que en ce moment jàmbaar dafa wàccoon ligue deux. effectivement. du ko mu woo ma ne ma ak say statut ça te permet pas ngay jouer ligue deux.

xëy na ñu bëri ñi ngi rêvé jouer foofu noonu voilà ak Allez ni mu mel ak yooyu noonu euh, biñ ma ñoom jomaa si contacté waxtaan ak man ak yooyu noonu Alioune Alioune Touré sama sama grand la donc bii ku bi ma bi ma ko waxee rek dama ne ko ok y' a parce que am na équipe yu bëri yu ma woon seen ma toog seen seen bureau yi ñi seen kër yi toog wax ñu waxtaan ci lu bare après ci la ma waa Casa yi woo ñu waxtaan ak yooyu noonu Alioune ma waxee ma ne ko y' a pas ma ne ko xaalis yóbbu ma foofu. dafa am loo xam ne man moom laay wuti ji foofu noonu donc ma demee après gis naa ci lu bari quoi te tey jii alhamdulilah maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax. négociation bi négociation bi Aliou Cissé bokku ci. non non non négociation rapport à ça non non non ci. ok hmm. franchement parce que les gens disent que ni Ousmane bu choisir Casa xëy yoonam pour retour. à l'équipe hmm. jamais parce que ñoom parce que Alioune hmm. moo ne ma demoo doo dem fenn. dañuy ñëw dem Casa parce que moom day dem pour liggéey ak Casa. ma ne ko y' a pas de souci on y mais euh, wax dëgg fa yàlla euh, parce que soit wu Sayer moom moo moo moo moo mën a doy. ak Alioune boobu noonu. pour ma mën a dem ci ñoom. franchement mais amul kenn ku ñëw taxaw ne ma euh, choisiral Casa franchement. Ousmane demul Casa libération la wala prêt la non pré la woon. pré la woon ok parce parce que même même même bima dé demee pré même man commencé nekk bi ma hivernal ak Casa sax. Mhm. jambar moo ma doon fay parce que tamit xeyna euh lettre de libération bi ñewul won pour euh, euh, pour ma mën qualifier au niveau du Casa. Mhm. mais aussi nga joggé jógee Casa. Mhm. ban expérience fi jël fofu waaw Casa xam nga euh nek na lo xamné euh li fa am yombul moy euh nit ñi. nu ñu bëggee club bi mais fi may waxee mooy euh, amuru club biñ ma jox nga xam ne moom laa dem ba am parce que da ngay jouer fii ba c'est pas Louga wala Saint-Louis da ngay gis plus de xawma ñaata personne ci kaw tribune yi yu jóge Dakar foofu du ñëw donc ñooñu mënoo leen jox dara parce que tey yaakaar naa ni euh, nit mënoo ko comme tey nit nit nit kuy football tey munoo ko jox benn je sais pas cinquante millions ou mm-hmm. quoi que ce soit mm-hmm. loolu munoo ko fayee loolu noonu xaalis boobu noonu mm-hmm. li nga ko mën a fayee mooy tey nga gagné benn match nga def performance bu baax pour moom mën a kontaan ci loolu donc la mais boo yëkkati woon cinquante di ko jox sax xëy na loolu victoire boobu ngay am foofu noonu moom moo koy gënal waaw donc li ma fa jëlee wax dëgg fa la c' était quelque chose d' extraordinaire quelque chose extraordinaire ñu gis ma pël bële fi taxawaat मांडर मास ने Sénégal parce que बस ñu prouver Sénégal parce que mëno nek jambar pendant tant d'années jogé fa dëkk bis naal jël casa moy jeex mais mhm. mhm. ñëpp doon xaar Europe wala xaar mhm. fenen tay ñu gis Ousmane ba légui nek en Afrique oh, oh, tamit waaw xam nga tay ji ni eh, man maay sante yalla comme lay <laughs> wax rek depuis sang ba tay parce que c'est une proposition bu ñëw bi mu ñëwé

foofu noonu c'est intéressant ou pas waaw après bi ma bi ma bi ma demee bi ma gisee conditions yi tout ça là sant yàlla ma ne ah c'est intéressant donc euh, mën naa ko jël mais euh, c'est pas que xëy na yaa ngi Europe mhm. wala c'est pas Asie wala mhm. Amérique mhm. du football foofu noonu que yaa ngi gën a dund ñi nga xam ne ñi ngi fini ni Afrique non non non problème salaire bi sax problème salaire bi dañ ciy tàngale mais plan de carrière plan de carrière xam naa plan de carrière xam naa li ngay wax parce que uh-huh. tay euh comme li nga wax affaire de salaire bi mën na am xaalis uh-huh, uh-huh. mais est-ce que visibilité bi effectivement mi ngi fi ak ñu ngi xaar sa retour voilà mais xaar retour bi pourtant Khadim Dia il a fait combien d'années Guinée avant muy ñëwaat sélection parce que dafa dem jouer Ligue des champions ñu gis ko xëy na boo demee Ligue des champions football ou Coupe ka football am na ci beneen niveau bu la gars yi di séntu niveau boobu nag dina tax gars peut-être woo la équipe woowaat la équipe nationale et tout mais Khadim il a fait presque trois ans comme ma année yoo xam ne une woon sélection demi mi Guinée après par la suite biñ demee de commencer jouer Ligue des champions et tout lañ ko xëcc mu ñëw. comment ça s'est passé pour noonu. Afia boobu je pense que club maglo. mag la woon. Afia bi bi ma bi ma bi parce que bi demain, au début c'était pas facile métti woon en Europe, xëy na expérience bu bees le woon bi ma bi ma bi ma demee au début c'était voilà j'ai un match mais un ben instant boo xam euh, le vieux était malade et tout dañ il doon woo heure ne ma pas dafa feebar voilà mentalement après voilà mm. ay 14 mois dañ la doon pas dafa feebar non, non non nga am mais je naa ay match amico mais c'était pas... pas après le coach est venu me voir ñëw ne Ousmane qu'est-ce qui se passe wax ñu waxtaan ci ci lu bari ma ne ko ñu yàgg mu ne ma ok léegi dañuy dañuy dañ dañ lay teg fii nii ba ba ci kanam comme ça dina la permettre nga concentré waat pour pour pour pour ñëwaat tuuti mais après par la suite dem nañ jouer Ligue des Champions mais j'ai pas joué j'ai au moins parce que peut-être nekkuma woon en forme et tout après Ligue des Champions bi championnat bi man man maa ko joué et man maa nekkoon seul étranger bi nga xam ne joué wul woon ci Ligue des Champions mais après par la suite. Euh, bi championnat bi dem dem ba si kanam match ma joué man maa nekkoon meilleur étranger sama équipe te man maa nekkoon meilleur euh, joueur équipe bi. Euh, bi championnat bi jeexe quoi. championnat bi jeexee mais ñaari championnat yi noo gise fi nga def fii pendant dix ans dem fa la def noonu <laughs> ci niveau bi. ci ci ci ci ci niveau bi nag xawul xawul xawul sori ah. xawul sori parce que yaakaar naa ne fii métti métti na trop ah métti na trop peut-être que xëy na condition yi ñu ci war a def. kenn defu ko ci parce que fële na je je vu des conditions yoo xam ne euh, club bi ñi ngi koy def pour euh, pour ces joueurs parce que dañuy dem jëli ji ay ay joueurs étrangers voilà mais je pense que joueurs étrangers ñu jël di leen fay yenn yenn somme yi dina permettre jeunes yi nga xam ne ñi ngi si championnat national bi góorgóorlu pour mën a nekk ci niveau pour mën a am euh, même salaire que joueurs étrangers yi nekk foofu noonu voilà mais bu fekkee niveau moom niveau bi hmm, ñoo ñoo ñoo xaw a yem niveau daal. en fait ñoo ñoo xaw a yem niveau voilà. ñoo xaw a yem niveau sur le plan personnalisme. sur le plan personnalisme euh, fii c'est professionnel. c'est vrai mais comme li wax rek euh, même xam nga investissement mën nga ëpp xaalis nit ki. Mhm. mais bu amulee euh, une bonne gestion sa dara mun munul dox voilà suñu côté bëri na le euh, problème bi que côté administration dañoo xaw a mhm. kii dañoo xaw a faible tuuti mhm. ah du coup xëy condition conditions yi ñu leen def fële ne le kenn du ko def fii nii mhm. peut être tamit fële état bi dafay dafay dafay joxe subvention voilà te yaakaar naa ne amul fi Sénégal donc mënul nekk loo xam ne euh, c'est la même chose lan lay def Ousmane bu toogee jàkkaarloo télé Ligue des champions parce que génération bi ñëp ñi fa nekkoon tey <laughs> ku ci melni ku wax ganno wax Ousmane Mm-hmm. tay ñu gis ñoo ñu accéder ci niveau boobu noonu Ousmane. Mm-hmm. lan lay def loolu. waaw au fait c'est c'est dafay nekk fierté parce parce que tey yaakaar naa ni comme tey jii nii bu amoon benn boy jeune bu dëkk yarax rek te jotoo dund ak moom xamoo ko mu nekk seen niveau yi day nekk benn fierté pour yow donc euh, weesu nag koo xam ne tamit nag da ngeen partager lu bari waaw parce que man souvent je lu may wax souvent nee naa man du ma du ma seetaan football football moo koy seetaan. soit ben Sénégalais de football ci ben équipe wala Lionel Messi di football wala euh, am ben collègue Jambar bu bu football loolu laa seetaanee football mais à part ça mom duma duma du ma football donc féete lay doon gis benn Sénégalais bu nek ci devant l'écran du football ak yooyu noonu. surtout nekk sa gaañ quoi. waaw surtout nek sama gaañ mom loolu mom ken ken mënu ko dindi. dëgg la yang koy wax euh, léegi nii. Euh. wax nga boo wax fo xam ne dafa am solo. Mhm. on ne peut pas dire Ousmane Mané invité bu muy ñibi mhm. sans parler day Mhm. tey gis nga situation fu mu yaraax mhm. actuellement nii fi mu toll mhm. tey Ousmane ak expérience bi am yëpp dund ko ci milieu professionnel tey bu ñëwee xool situation bi nii ban ban jàngal la ci mën def situation football yaraax xam nga comme noonu wax sànq rek comme que euh, xëy na yàlla defoon na am na équipe yu fi nekkoon xaw ma lan moo tax tey jii ñu nekk en en baisse ñun ñëpp buñ ci investir d'ici dix ans xëy na mën na doon lu mag loo xam ne suñu fierté lay doon fierté bi lan la mooy man jàppoon naa ci lii ba tey jii nii mu ngi ci benn niveau mais ku nekk bu toogee koyam naan damay xaar ñu woo ma ça ne du ma sa dox donc ñun ñëpp dañoo war a mun a ñëw bu ñu xaar kenn ku ñu woo ñu jàpp ci je pense que nii loolu loolu loolu donc moom mooy solution bi voilà dinaa la wax li ma waxoon sa bi toogoon fii Pape Maïssa Ba mhm. mhm. di jouer mhm. dajale ay carte ñu ko defee Mhm. parce que tamit fierté la woon. si gis benn Ousmane. Mhm. gis benn am gis mhm. benn mais tey ba léegi Ousmane mu ngi ci lancé boobu noonu. mais Ousmane qui rassure. à la population Yaraax. vraiment un jour. daa ngi gisal retouram en équipe nationale. waaw parce que comme lay wax rek parce que yaakaar naa ni nit nit ku nekk ci looy nekk da ngay ñaan yàlla mu avancé. Hmm. Euh, boo jógee si niveau bi da ngay ñaan yàlla nekk ci niveau bi Le niveau bi ni ngay ngay ñëw après len donc mo la koy jox le travail parce que tu vas pas rester les mains croisées nan da ngay jéem euh niveau boo xam ne liggéeyoo je travaille tous les jours hein, franchement parce que tay xeyna euh, en 2012 2013 2014 li ma doon def man tay parce que même moi nek Guinée je faisais plus ça mm. parce que xeyna li taxone mo ñëwaat sama sama sama sama niveau bi may Guinée le fait que ma doon travailler plus. donc mënu toog ne ah man kat damaa bëgg ñëw équipe nationale ba pare voilà bu gars yi defee benn ma def benn ñëw c'est impossible. Mm-hmm. donc maa ngi ci maa ngi ci projet boobu nag depuis depuis l'année dernière maa ngi woon may nekk même may nekk Casa def def na deux ans je pense may nekk Casa sax maa ngi maa ngi woon ci projet boobu noonu mais tamit xëy na yàlla moom moom moom moo ko bëggagul mm-hmm. mais wax dëgg fa yàlla. Euh, képp ku nga xam ne sénégalais la yaa ngi ñaan yàlla football ci équipe nationale waaw donc xëy na comme li ma doon wax sànq rek li may def xëy na am na sama moroom yu ma ko dàq fuuf mais yàlla joxu leen sens boobu noonu moo tax nekkuñu si niveau boobu noonu donc donc euh, liggéey bi rek moom moo ci am solo après bu ma bu ma ma liggéey rek lu yàlla indi moom ma xam ni yàlla. comment ça se passe relation Aliou ak Aliou Aliou. bon Aline on se voit <laughs> souvent hein. mhm. dañuy dañuy dañuy gisante souvent tooñante après voilà. Mhm. amna solo di wax ni bokk internet yi suñu gan gi di Ousmane Mané l'international lañ invité won tay ci sen émission sport New Vision 13 mo am ben rubrique bi ñuy def chaque émission bla moo jeex mooy que ni jox Ousmane mu wax ñu histoire football Sénégal moom tey 111 ak ses euh, remplaçants. non histoire football Sénégal moom li loolu loolu loolu dina xaw doy waar trop. waaw ah, loolu moo ci neex nag parce que parce que <laughs> parce que xëy euh, am na ñoo xam jotu ma leen seetaan. Mhm. te tamit xam nga nga jeune ni ah diw kat euh, la il était très fort ak te man ma leen. yow ñi la marqué <laughs> yow ñi nga xam ne nga leen. waaw nga marqué la. ñi ma ñi ma marqué ah. comme. Euh, nañ démarrer ci gardien de but. waaw parce que Tony la seetaan il m'a impressionné franchement à un moment. Mhm. waaw. Comme euh, Tony Silva gardien de but. voilà arrière droit. Euh, Ferdi. Ferdi ouais. arrière gauche. Euh, <laughs> arrière gauche Euh, Pape Ndiaye soirée, franchement Il dem dans l'axe kon. dans l'axe. Mhm. <laughs> dans l'axe je mettrai Kara Mbodj avec Koulibaly franchement. Koulibaly parce que a dem ci digg terrain ah digi terrain bi digi terrain mën naa am deg kii rek. Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye comme meneur. mooy sa meneur moom xanaa ngay di Sadio Mané. Sadio Mané waaw waaye foofu rek. ñu dem dans l'attaque à droite. ñu dem ci kaw dans l'attaque. ci kaw. ci kaw je mettrai El Hadj. Diouf ak. Fadiga de de de Fadiga des benn. Henri Camara Henri Camara ok ci kaw. 11 yi moom nek non ñam ci remplaçant ya ah. sa deuxième gardien koy choisir. deuxième gardien. Mhm. Euh, gardien qui m'a marqué le plus. Euh, euh Omar Diallo. Omar Diallo ouais. ok. j'étais avec Tony parce que comme li wax papa Ndiaye Soare rek am na lu mu indi won du lu extraordinaire muy les sur les pénalty et mhm. tout ça voilà. mais mhm. bu ñu ñëwee ci Omar Diallo am nga benn remplaçant. deuxième. benn remplaçant je mets comme. Euh, en défense. en défense euh, comment il s'appelle là.

après. quatrième. Euh, Salif Diao. Salif Diao. Ah, Salif Diao. Cinquième. Cinquième. Euh, <laughs> je mettrais Papis Dembassi. Papis Dembassi, c'est ouais. Benen attaquant. Euh, Mambiram Diouf. Mambiram Diouf. ah, voilà 11 Tibou Ousmane Mané avec ses remplaçants. Mm. Bon, il, est, il a bien précisé que nous avons un stand, là, nous avons vraiment impressionné par l'affaire. Nous avons 11 types. Ousmane, message que tu à la jeunesse waaw message comme comme wax rek euh, bi bi ak euh, ak parce que loolu dog moo ci am solo ay ndaw lañ kuy pour avancer avancer franchement parce que éducation du football dafa am solo trop trop trop hmm. parce que di un excellent joueur même même même ba Europe sax hmm. mais ce côté éducation bi la ñuy a am problème te loolu nag dafa am dafay am lu mu leen gàllankoor ci lu ci lu bari. Mm-hmm. talent bi donc doyul. il faut ngay déglu parce que ñi nga xam ne ñoom nga nekk ñu lay jàngal ñoom dafa am benn expérience bu ñu am jot am. parce que mm-hmm. fekkee nañ. Mm-hmm. lu bari. tey jii nii am na jour yu fi yu fi doon fayeeku ay millions ay millions. aujourd'hui am na ñeneen fi nekkoon ci yeneen niveau. bon bu ñu xoolee ci man rek te jii nii. du ñu sonn franchement. euh, maa ngi rafetlu tamit hmm. invité hmm. hmm. bi nga ma invité parce que nekkul woon li ma doon xaar sax bi ma ko aadama waxee ci laa ne ah comme que yaraax la te yaraax ñun ñëpp ko nañ ci liggéey bi voilà parce que buñ ci jàppalee ñu avancé parce que tey na ci image bi xëy amal na ma njariñ mun na ma amal njariñ suba wala ginnaaw suba keneen di nit ñi di déglu mun nañ ne ah kii kat ndekete ni lañ na mel ndekete melul

Euh, nit ñi tamit war nañ mën a reconnaissant envers ñoom. Mhm. parce que passion moom moo tax ñoom ñu koy def. Mhm. donc je sais pas yaraaxloo wala xaw ma fan. Mhm. ils doivent être reconnaissants. pour delloo leen njukkal franchement. jërëjëf Ousmane di la remercier vraiment di kontaan ci wuy si ñu wuy si parce que je pense que c'est pas évident ak àdduna bi fi mu toll nii mun xawul neex ci déplacement. bon voilà mbokku internet yi lii lañ leen indiloon ci seen émission sport New Vision 13. di gërëm suñu techniciens yi di remercier ñëpp di jox dig daje ci beneen émission.